saa bu bëggee ci làmbu ji barke yow mbal xiyaam la ko baat ku yëg da ngay ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne nag tey ñu ngi ci mardi maanaam talaata le 27 juillet 2021 li may def mooy ginnaaw bi ma leen nuyu bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay yi li ñu wax tey ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 27 juillet 2021 dañuy ñëw ak yéen ci kaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu lamb tey xëtamu njëkk la ca xëy fes bokk na ci weekend bi nga xam ne ci lañ nar a jëm te mu nar a boo xam ne bu nar tàngalal lool ci làmb moo xam diggante Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 la wala diggante Seta ak Papa Sow bi nag fa mu njëkke mooy ci diggante Seta wala bokk ci diggante Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi daal na boo bëggee dégg moom le 31 ji daal fi mu nekk nii nar naa yëngu mu mel ni ki nag Bombardier moom la moo xamle waat daal nee na liggéeyu benn mbër wala benn adversaire amul looy liggéey bi loo xam ne nii dina taxaw ci sa kanam wala nga taxaw ci sa kanam ci kanamam ak sab liggéey ba jaaxal ko Bombardier ne na loo mën a liggéey boo taxawee sama kanam itam duma la sax lijjanti Balla Gaye 2 daal tontu ko nekkoo lu mën a xew yow da jàppal ne daal fi mu nekk nii mag nga te retraite moom mënoo wax a wax a wax ba duma la yóbbu retraite maanaam IPRES da nga fay dem par A ou B loolu mooy waxi ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye moo di ab tontu Hippo ngaari moom yore micro central nekk ci làmb ji la mu xamal la mu ngi koy dànkaafu na ko lu mën a xew daal yow Balla Gaye numéro de nanga xam ne bombar Bombardier mooy favori bi ba ca des tamit xeex moom arrangé wu la ci bii combat Hippo ngaari nag moom moo xëy tey wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ci yemu ca nag nee na Balla Gaye 2 nag sensé na bu baax a baax a baax a baax a baax Typo Ngari ñëw na daal moom itam wax jooju wax beneen combat boo xam ne tamit le premier août la nar a am war a dox ci diggante Siteu ak Papa Sow foofu tamit fi mu nekk nii daal yëngu na ba yegg ca lool lool yëglikaay ba ñëw na tamit dalal beneen magum làmb muy ka nga xam ne moom moo di ñoxo baay ñoxo bàyyi nag moom la mu xëy xam ne daal ci diggante Siteu ak Papa Sow nee na ñu def ndànk de ndax nag ñoxo baay nee na boo sàgganee day nañu def ndànk ndax mën dóor kenn ci ñoom ñaar mu yegg daanu daal ne na boobu combat moom bu dee am na ne na dàquma ci lool de ne na la boo xam ne daal door mu daanu ku yebu xaar ko ci muy diggante Siteu ak Papa Sow ñoo ko bàyyi moom moo gisee nu mel ni ki noonu kenn koo xam ne nii wala ñaar ña war a bëre kenn ka moom démb la doon def open press am muy Siteu yëg li kay bi suñu làmb nag moom ba mu yeewoo la munu xëy xamal ne na Siteu boo bëggee dégg dëgg daal lan lansar ba tas na jàmm gën tasar ndax nag yëglikaay ba dikk na ca mbooloo ma ak bari ga nga xam ne bari nañu ko mel ni ki nag fi mu nekk nii daal kon seta mu nga ca waaj mu méttee méttee méttee wax na tamit ca micro Equivox TV laaj naa ko ndax seta buñ poussé sa combat wala buñ ne du am seta ne na moom lu mën a xew dimanche day bëre waaye daal loola waaye mën a wax moom moo xam ca Equivox TV la wala sunu làmb wala feneen foo mën a dem mbooloo ma ñu gis démb jàmm gën doy na waar ba yegg ci lool lool maanaam seta daal la koy topp bëri na lool ña nga xam ne nag wala ñeneen ñoo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom làmbam dañ koo annulé woon ci weekend bi nu génne mu waroon tëgg di dimanche ji nu passé ca mbuur muy booba kar Niang borom Ama Events moom tam daal mu nga xëy di xam le day ne na mbuur ga mu waroon tëgg grand combat ne na boo bëggee dégg dëgg daal perte na xaalisam lu toll ci ñaari millions yoo xam ne daal ak lu ko ëpp sax ne na kon mbiri nan ko xoolaat bu baax a baax a baax parce que nag préparé wu ba pare ñu xëy a xëy ne la lamb ji dootul mën a am te ne la jox yoo xam ne yu leer naññ la Boubacar Niang xëy na tey di ñaxtu ca yëgle ka ba nga xam ne moom moo di sunu làmb ñeneen ñoo xam ne ni tamit la daal Boubacar Niang daa mel ni day moo leen di yoot yëglikaay bi nee na te ku xamoon la ngay li lay yoot danga nga bàyyi la ngay yoot moo xam Gaston Mbengue la Pape Abdou Fall Pape Thialis Faye ba ca Fallou Ndiaye yëglikaay bi nee na boo bëggee dégg dëgg daal ñoom ñii daal démb ki nga xam ne moo di gouverneur dalaloon na leen ngir nag ñu jëm ci la nga xam ne nii daal yi ma xool ne ni def ba seen combat yi nga xam ne mooy ñëw ñu seet nuñ koy organiser démb daal waxtaan doxoon na ci seen diggante ak gouverneur moo xam Gaston la moo xam Thialis la moo xam Pape Abdou Fall la ba ca Fallou Ndiaye yëglikaay bi moo xëy dikkal ñu ci lu mel ni noonu mel ni kon fi mu daal lamb ji moom ci guddi gu bët setagul dëgg dëgg dëgg ci la nekk bu buñ fa jógee dem les arènes les arènes moom lañ fay fekkati ba tey mooy ñaari combat yooyu rek muy Siteu Papa Sow bombar jë Balla Gaye Luc Étienne nag mook Bombardier lañ ñu woon ca taatu géej ga ñu ne ca wàllum boxe ma Luc Étienne moom nee na Balla Gaye numéro 2 boo bëggee dëgg-dëgg bii combat wàllum xeex bu ko ci sax jéeb ndax amoo ci benn saas wax boo xeexee maanaam la la say fekk du neex Luc Etienne nag su ngeen ko déggee moom mooy entraîneur Bombardier bi nga xam ne doomi France la te nekk moom fii di liggéey nee na daal boo bëggee dégg-dëgg moom Luc Etienne daal yemu ca nee na Balla Gaye de ba mu gis INSEPS daal ci ay jafe-jafe ak i difficulté donc la ko gis moo tax xamle na ko daal boo xeexee moom maanaam la la cay fekk du neex si ta Papa nag moom boo bëggee dégg-dëgg zal ba xëy na di ca wax ci les arènes zal na ñoom ñaar ku ci nekk am nga ay chance yoo xam ne ni daal boo ko exploité mën ngaa gagné la nga xam ne nii moom moo di combat bi yëglikaay bi moom moo xëy dina ko wax moom les arènes bu nu duggee ca biir yëglikaay bi nga xam ne nag moom moo di les arènes moom lan fay fekk mooy mbëri mbapat yi nga xam ne fi mu nekk nii daal boo bëggee dégg fees nañu dell ci ci lit avec bi ñu wan ñu nag Ibou Ndiaye ëbbali Cheikh Tidiane ña ba ci Doudou Sané te ñoom ñii daal maanaam daan leen dafa jafe lool ak seen yeneen i moroom mi mbëri yoo xam ne mbëri simple lañ yoo xam ne fi mu nekk nii daal dugg nañ ci lit avec frappe bi te bañ ca duggee ak léegi daal ah boo seetloo daal wala nga def ab taxaw seetlu sonal nañu bu baax a baax a baax mbër yi nga xam ne dañuy bëre dóor kii moom mbër la moo xam ne da daan bëre yàlla jël ko yëglikaay bi di sunu làmb moo ñëw ci tuus wax nu ko muy doogey yëglikaay bi nanu daal doogey bu lébu gi maanaam génn na àddina démb yëglikaay bi moo xëy tey dina ko wax mel ni kon daal doogey ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana kii moom maanaam mu ngi ci àddina waaye dafa riir muy koo xam ne nii daal maanaam ñu ngi koy wax la nga ka nga xam ne nii moom moo di ndongo njaay wala boog bàyyi ndongo njaay moom nag daal daa réer fa mu réere nag mooy ca Touba ca daara ja ngeen déggoon maanaam daa ndongo ya dajje ko maanaam daw moom nag mu nekk xale boo xam ne ay juróom-ñett wala juróom-ñaari at daal lay war a am moom bàyyi ndongo njaay maanaam réer na ay mbokkam mu nga dëkk nag dëkk bu nuy wax ngaan làmbaay bàyyi ndongo njaay mii nag balde sama goro la ndax sama rakki jabar la yaay ja mu nga tudd la nga xam ne nii moom moo di Astu Diouf baay ba di Assane Ndiaye mel ni kon daal baay ndongo njaay mi ku ko gis ngir yàlla ak yonent bi nan nga ko wan ay way juram danaa leen jox numéro téléphone ba kat parce que nag olof a ko wax ku xalam jaayu ca maanaam 77 ngay def 449 66 66 77 449 66 66 bàyyi ndongo Njaay dëkk ca ngaan làmbaay daan jànge Touba ca daara ja nag Madiyaana daara Siise mel ni ki daal moom moo réer ba ñu dajjee daara ja loolo daal moo fi dikkoon tey ci yëglikaay yi cërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi loolu la ñu xëy tey andil ñu ko moo xam sunu làmb la les arènes Equivox TV wa ci fu ci mën a doon rek ah wàllum làmb tey loolu moo fi ñëw waaye fi nga xam ne ni nag fi laa tëje balde fi laay ubbeewaat li nga xam ne nii moom moo di waxtaan wi mooy ki nga xam ne nii moom moo di Baye Ndongo njaay bi nga xam ne nii xale la boo xam ne dongob daara la woon nekkoon fa nga xam ne moo doon ca Touba ah, doon fa jàng alxuraan ci daara joo xam ne nii mooy daaraay Cissé noonu la daara ju dudd suma déggee daa mel ni moom Baye Ndongo Ndiaye nag moom ngeen di gis noonu ci photo bi mu sol boobu noir boobu moom Baye Ndongo Ndiaye dëkk ngaan Lambaay way juróom bu góor tudd Assane Ndiaye way juróom bu du jigéen tudd Astu Diouf ñu ñaan képp koo xam ne gis nga ko rek ngir yàlla ak yonent bi nga woo ay mbokkam ci numéro bii ma leen di jox wala bi ma leen di joxaat muy 77 449 66 66 77 449 66 66 muy Baye Ndongo Ndiaye di xale boo xam ne xale bu ndaw la ay atam war a toll ci ay juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti li indi loolu nag mooy dongo yu mag yi ñoom ñoo toog ba guddi ñu dajj daara ji ah xale yi xam naa ndeysaan ñàkkul ñoom xale yu ndaw yi boobu ñu ngi di nelaw ñu génne leen ñu daw génn bi ñu génne nag xam na xamuñu fu ñu aw moom moo war a riir am ci waaye daal ñu ngi sàkk bu baax a baax ku ko gis rek nga woote dëkk ngaan làmbaay may nuyu waa làmbaay yépp di nuyu tamit famille Ndiaye bi nga xam ne ñoo nekk foofu balde sama ay goro ah maa ngi nuyu Assane Ndiaye di sama goro ak Cheikh Ousseynou ah ak ñoom ñëpp ñoom famille bi yëpp daal maa ngi leen di bëgg di ñaan yàlla xale bi yàlla na ko yàlla nit ba mu feeñ barke yonent bi sallallahu alayhi wa di wax que ni euh, daara jooju comme am na loo xam ne ñu ngi ko ci doon dégg ci ay wax yoo xam ne nii bokkul ak li am parce que man dégg naa sëriñ daara bi sëriñ yu Mbacke moo ko tegoon foofu muy jàngal xale yi defe naa daara ku gis nañ ko liggéey di nga xam ne fii du daara joo xam ne nii daara joo ab taalibe di sonne la waaye nag maanaam buñ ne du sonn mooy des fois ñu indi xale ci daara balde mu mel ni Babacar të maanaam di def ay naka su dul noonu kooku bu dikkee ci daara dafa am koy jubbantee loolu day am ci daara yi yaa ngi dégg parce que des fois nga sa doom mu jaaxal la lool doo am ci moom benn solution nga yóbbu ko ci daara ja ñu redressé la ko jubbantil la ko ba ko gisaata nga naan est-ce kii la woon kon defe naa yooyu nañ ci bàyyi xel te dégg naa Mansour Diop ma ngi koy nuyu di ko ziar bu RFM astaghfirullah bu Zik FM nekkoon na FM mais léegi mu ngi Zik FM Mamadou Mansour Diop ci suba wax na ci nee na dem na ca daara ji 2019 def fa al iqsad di émission bu mu doon def waaye nee na daara jooju lañ cay wax ak la daara jay dox doxe du benn ndax daara ji nañ ko liggéeyee ak kooku xam-xam ya mu yore di ko jàngale kooku defe naa ne nag kon ku ciy wax nanga wax loo xam te effectivement moom mooy li am ndax itam yaakaar naa Serigne Saliou moom ku mu jox nga xam ne jox na la ku mu liggéeyloo di nga bo doo bokk ak ku mu liggéey loowul loolu yàlla moo ko dogal Serigne Saliou Mbacké ndax yombut Serigne Saliou jàngale loola wala mu liggéey loola wala mu yar la loolu du ñépp ko mën a am kon ñu ngi ñaan daal kani daara yi tamit nañ leen gën a gëstu di ñaan xale boobu sama goro boobu parce que rakku suma soxna la di suma ñaareel moom Baye Ndongo Ndiaye yàlla na ko yàlla nit nit képp koo xam ne da sa ay mbokk buñ ci jógee dañuy ñëw nag ci yi muy sunu làmb muy les Equivox ak fu ci ne ba sa Lutte TV ah ñu fépp fi nga xam ne làmba nga fay defe naa wax ji fi mu nekk nii benn la mooy li war a am entre samedi ak dimanche Balla Gaye numéro 2 Bombardier soog boo xam ne ni daal bu nar a tar tar la yëglikaay bi Bombardier xam le na ne daal du ab liggéeyu mbër bu mbër di liggéey ah waaw waa parce que nee na du liggéey adversaire ay taxaw maanaam moo koy nekk loo xam ne lu koy impersonnel la loo xam ne da koy def ay loo xam ne da bàyyi sax xel nee na moom amul adversaire bu muy taxawal nga entraîné entraîné entraîné ba ñëw ci kanam mu di la bàyyi xel boom nee na loolu moom xalaatu ko sax sóoraale ko bokkul ci lu muy bàyyi xelam loolu nag mën nañ ko gëm ci ni muy bëree parce que Bombardier ba muy bëree ba tey maa ngi leen koy rappelé waat boobu ba tey mook Balla ko jox avertissement ci da dellu ginnaaw yaa ngi dégg yooyu moom gisaguñ ko Bombardier kay attaqué na la dal na sa kaw xeex na ak yow loolu lañ ko xamee kon loolu bu ko waxee mën nañ ko jàpp Balla itam tontu na ko parce que tontu du forox ne na ko mag nga te retraite laa la jëmee maanaam IPRES kon ca retraité ya ñuy nuyu suñu mbokku retraité yi suñu papa yi parce que retraité yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal gudd fan ak wér gi yaram Balla ne na ko nag foofa laa la jëmale waaw Balla itam defe naa ne tey loolu ah moom la gëm te itam yàgg naa wax mbër ne ko dinaa la def nangam bés ba jot bala jëfee ko loolu moom ñi tàmm nañ ko ci moom waaye bii ndax dina jàll wala du jàll ñun yónni yàgg ba bés ba yàlla nañ ko fekk te tal ko beneen bés boo xam ne itam bés la boo xam ne bés la ci biir bés yi di bés bu spécial muy le premier août Siteu Papa Sow coow li bal di tar na fi mu nekk nii diggante Parcelles ak jàmm gën ah, euh, waaye balaa may ñëw foofu damay ñëwaat ci Balla Gaye di ak Bombardier parce Hippo Ngari suñu papa ñu koy nuyu di ko ziar yore micro central lu làmb ji la mu xamle nee na Balla Gaye numéro 2 nee na ko xeex bi arrangé wu la baaxul ci yow de waaw nee na ko daal xeex moom arrangé wu la te nee na ko itam Bombardier mooy favori waaw moom loolu la gis waaw loolu man na bu fekkente ne nag lamb moom saa yu amee dina am luy arrangé adversaire ak lu ko arrangé parce que ku ci ne ci ñoom ñaar am nga ay fort am nga ay faiblesse mbër nag fi mu foore moytu ko fa mu faiblesse itam jéem faa jaar exploité ko yaa ngi dégg favori bi tamit bu ko waxee mën na nekk favori wu gay la légèrement moom Bombardier parce que li tax mooy muy nekk favori am sax mooy da ko jiitu ci làmb moo ko njëkk bëre dégg na roi des arènes ñaar yoon et bi ci des mooy Bombardier daan na ko kon Bombardier moom mooy favori bu ñu ko tegee ci cadre boobu yaa ngi dégg waaye du tere Balla Gaye nga nekk favori ci kanamam terewut mu man laa daan de parce que nag ah <laughs> combat bu doy waar ngeen di gis de. yàlla nañ ko fekkete tal ko bu ñu fa jógee ñëwati ci leneen li ma leen waxoon léegi lu spécial loo xam ne bés la ci bési muy Siteu Papa Sow foofu Ipo Ngari suñu baay ba xëy na wax fa la mu xam le nee na ah ñoom ñaar nee na faal li mu gis mooy kaw mën na caa am Siteu ak papa wax na dëgg parce que njool ak ndaama bu ñu xeexee ah am na façon xeex bu ñuy xeex doon mu daanu mën na cee am loolu Pape Abdou Fall fa jaar muy dimanche la premier août Siteu moomu démb image yaa ngi Equivox sunu lamb xëy na ñëwal ñu ci xamal ñu Siteu tas na jàmm gën Baldé yaa ngi fa woon démb defe naa démb euh, xaw ma sali nga dëkk xaw foo dëkk waaye la nga dund démb la nga gis soo koo gis ba nga dem Baldé ba tey parce que même mbooloo dar Siteu moo tax daal Siteu daal phénomène la ñi ko tuddee la phénomène de Lansar joobu ñu de phénomène la de te itam nag dafa mel ni décision moom ferme jël nañ ko loolu nga gis ci ñoom démb pour le premier parce que nag Siteu daa jëm ci combat boo xam ne dafa am enjeu ci carrière am parce que ku ne xam na ne dafa ñàkkoon diggante ma guy gi te combat bii mu jëm ak mbër mi muy bëreel mbër waada lay bëreel bëriwul ak mbër mu ndaw mbër mu mag lay bëreel muy Papa Sow koo xam ne dafa mën a bëreel lool nekk sportif de haut niveau kon Siteu moo tax mu jël bis bi fonk ko waaye waa jàmm gën tamit fonk le nañ ko ko ndax nañ ko daree ah ku la dara rek ça veut que fa nga jëm na nga ko bëggee nu ko raw lañ ko bëggee loolu le premier août lay am buñ ci ku jógee ñu ñëw ci Boubacar ñaa ndax am na lamb yu ñu annulé woon dimanche ñu yaakaar na jëy seen la ak ki nga xam ne ñoom ñooy waa Jimbo waaye Boubacar Niang tamit dafa waroon tëgg ca Mbour wax waroon fa tëgg làmb benn grand combat yàlla dogal tamit ñu interdit ko loolu amul moom tamit mu ngi xëy tey di ñaxtu 2 millions yoo xam ne ak plus de deux millions sax yoo xam ne ñàkk na ko mooy loo xam ne vraiment métti na weekend bi moom li dal promoteur yi ñett li leen dal métti na trop trop parce que génne sa xaalis joxe sa ay frais def sa lépp dem ba dernier moment ñu ne làmb ji amatul doy na waar Boubacar ñaa ñu koy nuyu di ko ziar moom suma waay la doomu Medina mel ni kii nag ci tere googu li dal Boubacar ñaa dal Jéeseen dal ñoom ñu jimboo daa mel ni mooy yot Gaston Mbengue Pape Abdou Fall de ak ñi seen ginnaaw parce que nag yëg kay xamal nañu ne Pape Abdou Fall Gaston Thialis Fallou Ndiaye gouverneur dalal na leen démb dalal ga nag li ko war a lenn la mooy waxtaan ci nu ñuy def ba combat am yan plan la ñuy tëddal yan stratégie la ñuy teg pour ñu mën ko bëree waa xam naa daal ut ay plan ak stratégie moo gën annulé bi annulé bi moom bu amee moom ah dina doy waar dina doy waar trop trop trop trop trop les arènes ñëwaat na tamit ba tey ci Balla Gaye 2 Bombardier ñëw ci Siteu Papa Sow Balla Gaye 2 Bombardier Luc Etienne nag moom moo xëy di dànkaafu Balla nee na ko moom jàppal ne xeex arrangé wu la ci combat bi Luc Etienne nag moom l'entraîneur de Bombardier la ci wàllum boxe ak yooyu gis nañ leen ci géej gi ñoom ñaar gi nii na ko xeex bi moom arrangé wu la te nee na ko ne ma la gisee fële ca INSEP ah, mm, ay difficulté ay jafe-jafe daal mooy loolu quoi Luc Etienne da xëy na wax waaw Siteu Papa Sow ba entraîneur écurie Zap nee na Siteu Papa Sow ñoom ñaar ku ci ne am nga ay sens yoo xam ne ubbeeku na pour nga pour nga mën a gagner combat bi wax na dëgg parce que ñoom ñaar am na ku ci ne loo mane loo xam ne bu sa morom bàyyee ba nga yegg ci ak moom balaa moo defaru nga daan ko loolu moom lu leer naññ la gouverneur bi res bi daal démb tamit ñoom Pape Abdou Fall ñoom Gaston ñoom Thialis ñoom Fallou Ndiaye ak euh, ba ci ñoom Doudou Diagne ko président des amateurs loolu lépp am na du jànjee ko tamit gis nañ ko ci ci les euh, ci les arènes tamit mel ni ki daal fi mu nekk nii gars yi ñu ngi ci waxtaan waaye daal mbëri lit simple yi tamit ah ñëw nañ fee dell ci li affaire frappe bi de Ibou Ndiaye Obale ñu wan ci photo Cheikh Tidiane Niang Doudou Sané ñoom général Malika ñu ngi ci biir ñoom Serigne Ndiaye 2 ñoom Tony ah, ñoom Grand Mbagnick ñoom Ngel John ñoom ñii ñëpp ak buñ ko dee lim duñ fi jógee ñoom may mbëri simple lañ te fi mu nii. bari nañ ci arène bi te ndax te nañoo daan li indi nag ñu naqaree daan lenn rek la balde chaque jour dañuy compétir parce que mbiri simple yi chaque weekend ñu ngi bëri boo xoolee kon ñoom ñooy gën a roode ci bëri ñoom la seen yaram di gën a man di bëri bokku ñoog mbërum frappe bi nga xam ne mën na toog un an du bëri di xaar benn combat wala six mois ki nga xam ne nag chaque jour mu ngi bëri li ngay entraîné mën na am sax mu ngi entraîné lu ko ëpp ëpp la compétition ëpp la bu ngeen ñëwee ci làmb ji pour nga am ci moom sens day jafe gis gis nga rëg-rëg amaguñ defet jar nañoo bàyyi xel de seeti jaan ñaami amagul defet ñu jara bàyyi xel lañ ci làmb mbëri simple yooyu mel ni kon tey loolu moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi muy sunu lamb les arènes Equivox ak feneen ak feneen di ñaan jàmm di ko ñaanal sénégalais yépp ah di wax ne que nag ah làmb ji daal fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg-dëgg naa bàyyi leen ci xel de yéen ñi di may seetaan taxawaay bi mu taxawee wóorul de ak tellement nii lu leer laa leen di wax waaw moom daal li ma xam mooy xaw ma fi kenn procès ndax lamb yi dina am loolu mënu mëne dina am mënu mëne du am waaye daal xam naa ne lamb ji fi mu nekk nii moom mu ngi ci guddi gu bët set gul loolu mooy li am parce que nag coronavirus bi mu ngi ci dëkk bi fees fi dell fi mu nekk nii maanaam wàllante gi bëri na moor itam yokku na ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla jëlee kon mesures barrières yi nañ ko gën a respecté maanaam di raxasoo zel di sol ay masque xool tamit taxawaay bi bu baax a baax ndax nag olof ne na fagaroo gën faju te balaa nga naan naam nefa yaa ngi dégg wér gi moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaye làmb ji daal nañu xool nuñ koy utali solution pour man ñu bëre moo gën ñu koy annuler ay combat ndax ñu ngi for ci wéyu bëy loo xam ne nii day ah bu amee dina metti bu fekkente dañu ne annuler combat yi war am ci weekend bii kon ça veut dire saison bi fi lay jaaree tëj te waxoon naa leen ko fi démb noonu naa leen ah li ma jàpp mooy saison bi ci tëj ko leen jëm maa ngi loolu laa waxoon nag jóguma ca nag ba ba may gis contraire bi new ma nag li ma waxee am waaye daal loolu laa jàpp man Babacar di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers Equivox TV suñu soppe yi ñu mënee si àddina bi rek amuñu seen fay di leen ñaanal jàmm di ko saaku si yéen di wax ne Sénégal réewum jàmm la yàlla na fi yàlla saxal jàmm ji barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal kilifa diine yi encore une leen fi yàlla saxal en commençant par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk